tànk yi tànk ziar la <clears throat> tànk feddali kóllëre sama digganteeg sëñ bi euh, di ko gërëm bu baax ci jàpp ñu jàpp te euh, doon sàkk ci tamit ñaan ak jàppale ndax bés bi attan na lu ne bésub sëñ Abdoulaat la xamante ni moom dafa nekkoon référence ci ci ci yoon wi nekkoon tamit ku ku tabax euh, ci ci ci wàllu ci wàllu yoon wi ñu ñëpp xam ko ñëpp rafetlu ko ñëpp fonkoon ko fangokati ñi ngir taxawaayam ngir tamit eh, yéen gi ngi amoon ci ci yoom te def ci lépp loo xamante ne nekkoon na ci ay ci ay possibilité moo taxoon bis mel tamit suñ ko wutee dañu waxoon dañu wax ne fi ñëw ziar si ko eh, feddali ko la sàkku ci ay ñaan ci ci ci li nga xam ñu ngi ko yëngatu ci ci département Mbacké ñaan tamit président de la République yéen a ngi am ci réew mi yàlla jàppale ko ba moom na ak àggale lépp. suñu yéene mooy département Mbacké gën a jëm ci kanam. maanaam mu am lépp loo xamante ni département bu bu baax bu moderne war na ko am ndax département bu ëmb Touba maanaam yeyoo lépp. Mhm. président mu ngi ci def ay jéego yu mu mën te suñu taxawaay mooy fexe ba loolu yokk feeñ fës ci ci département bi yëpp ci au niveau de Touba mais également au niveau de toutes les communes yu yu wër yu wër yu wër Touba donc sunu yéene mooy fexe. Euh, departement Mbacké gën a jëm ca kanam ñu ànd ak président de la République gën a liggéey ngir que ngir xaru kanam département bi gën a soppeeku loolu moom sama yéene ba waa Mbàkke yëpp xam nañ ko sunu yéene mooy fexe ba euh, en tout cas sunu ñu dénk ñu Mbàkke ndax ñu mën ko ñu gën ko mën a liggéey euh, loolu nag dañ ciy taalal loxo képp ku nekk ku jàppale président de la République Macky Sall ci au niveau du département de Mbàkke mais taalal sunu loxo képp ku nekk Mbàkke au-delà des partis parce que li ñu jëm du élection parti du élection euh, coalition Benno Bokk Yaakaar waaye élection PDS coalition ñun waa Mbàkke ñoo tànn ki nga xam ne moom lañ jàpp ne buñ ko dénkee Mbàkke xar kanamu Mbàkke dëkk soppeeku